asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 27 avril 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb fa la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu lamb nag tey dafa xëy dalal koo xam ne Mouhamed Ali na koy wax Mouhamed nga xam ne moo di sunu lamb ñu ngi ñu ko wan ci ay photo yu fés a fés a fés mel ni ki moom nag jàppal moo ko tëraloon ci weer yi nga xam ne moom la ñu génne moo tax daal yëglikaay bi jàpp na ne day fa mu jóge si maanaam daal fa mu jóge sori na lool lool parce que nag moom daal parce que ah jege woon na li nga xam ne nii day moo deg faatu yëglikaay ba nag moo ko waxee noonu wala moom ci boppam moom Mouhamed Ali mu mel ni kii nag la ko daloon moom ay biir yu métte ak yeneen xeeti feebar yoo xam ne daal yu doy doy waar la moom la yëglikaay bi xëy ñëw wala moom waxal ko boppam maanaam daal état de santé moom critiquoon na ba yegg ci lool lool moom Mouhamed Ali waaye mu mel ni kii nag fi mu nekk daal daa mel ni kon ak tan xëy na am na ca yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw seq ak moom waxtaan ci xalima ki nga xam ne nii moom moo di Mamadou Ndiaye ba tey ki nga xam ne nii moom moo di Mouhamed Ali mu ngay wax ne na li nga xam ne nii day moom moo di liggante Lac de Guiers ak Tapha Tine ne kon jàpp na ne seen diggante fi mu nekk nii combat dàq ko te la xam ne nii bu a neex la waaye yeneen affiche yoo xam ne gis na ko tamit ngir mbërëm moom di Lac de bokk na ci loolu mooy wax nga xam ne nii moom moo di Mouhamed Ali dàqum ñoom si toon ru moom moom jàpp na ne loolu dey dafa mel ni moom daal na mu ko gisee du lu jaar aw yoon jàpp na ne tamit ki nga xam ne moo di alin saar moom yàlla yàlla ñu koy yàlla yàlla ci làmb ji ku naan na dem na dem ne na bu ma nekkoon place am man Mouhamed Ali kon ba tey bàyyi naa mbir yi dem sama aw yoon te nee nag tamit jàppal Alioune Sarr moom nee lu ko lu ko waay mën a waxal tamit xam nga ne làmb ji moom liggéey def na ko ci Mouhamed Ali mooy wax Alioune Sarr moom ma nga xam ne nag liggéey na ci làmb ji xëy na tey ci journaux yi moom itam wax fa ne moo xam sunu làmb la moo xam record la wala muy fa nga xam ne moo di la tribune bu dee fa nga xam ne nii moo di ca sunu làmb la moom Alioune Sarr moom xam ne daal mission ba nga xam ne moom la la nekk daal mu nga ca nee na tamit fekk autorité bi koy fal mu ngi koy wóolu daal nee na moom mu ngi fi waaye nee bis bu yàlla décidé na day dem moom nee bu keroogee wax ju bari du ca am mbirum arbitre yaag demog Yékini fu nekk wax na ca fa nga xam ne nii moom moo di ca sunu lam daa jàpp ne Yékini moom li am ba des daal dafa jàpp ne la mu def est-ce que yëf yu élégance la maanaam daal xëy a xëy démissionné saa nga xam ne ñoom nga nekkal wala ña ngay liggéeyal moom Alioune loolu la gis waaye leneen loo xam tamit wax na fa nga xam ne nii moom moo di ca yëglikaay bi nga xam ne moo di la tribune nee na li am ba des daal moom mbiram moom wala ay affaire am ko tàmm di mooy mbir mu mu mën a doon des koy waxtaane ci biirum néeg nee na nag lu war a dem ci biiram néeg moom daa jàpp ne kenn du ko génne di ko weer ca biti ñëpp di ca gis nee na noonoo moom lool du ñu liggéey tey suba waxi noppi te jàpp na ne Yékini xëy na ay mbiram mësu leen koo wax wala mu exposé ko fa nga xam ne fa la ko war a waxee tamit ña nga xam ne nii moo di arbitre tamit nee na seeni mbir tamit noonu la demee de ba tey ñoom itam daal lu mel la ñu deful xëy na bokk loolu mooy la nga xam ne nii nii mooy ay waxam nga xam ne moo di la tribune ba tey record tamit Alioune Sarr nga fa de mu ngay dëggal de nee na bés bu yàlla defee daal mu war a dem nee na su moom dana dem waaye daal li am daal moom jàpp na ne mission bii moom mu nga ca jëw na ca mbirum arbitre yàlla lu ci nekk daal wax na moom docteur Alioune Sarr ma nga xam ne nii moom moo jiite làmb ji waaye dañ fay jógewaat ñun delluwaat fa nga xam ne nii wala boog ñu dellu sam sunu làmb ndax am na koo xam ne nii moom ba ngub Alioune Sarr booba la teg bët muy Kéba Kanté moom jël ko la bëgg yëglikaay bi waxoon na ko fi wala boog dalal nañ ko fi fan yii ci sunu làmb mel ni ki nag waxam jooja moom tontu nees ko ba mu saf sap ka ko tontu nag mooy Serif at xaana Fall Serif daal nee na ko yow Kéba danga xamul sax li ngay def te xamoo fi ngay taxaw nee na ko di feebar di entré yow nga xëy di wuti bës naan ay bangu seen seen nga bëgg yu mel ni ki noonu mu ne ko daal yow da ngay jaawale vitesse wa ak li nga xam ne ni moo de précipitation maanaam daal xamoo ba heure a jot ak li nga war a wax nee na heure bi moom wax yi jël bang sëriñ at xaana faal moo wax loolu ka nga xam ne nii moo di Kéba Kanté ba tey bu ñu continuer kon dem ca làmb ja wala boog ñu des ca rek dañ cay continuer ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier moom yëglikaay bi xëy na ñëwaat ci moom ci ay mbiram ak fa nga xam ne nii fa la toll ak la nga xam ne ni xëy na boog moo ko war a def moom la war a def waaye leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne ni moom lam daan def gëjës naa gis mu di ko def muy Ablaye Ndiaye doomi Rebeer ñeenti at a ngi yoo xam ne daal kenn gisu ko mu bëre Ablaye daal fi mu nekk nii moom raar wala gis ko sax ak ay bët lees mënatu la def ndax nag quatre yu mat sëkk ñeenti saison yoo xam ne kenn gisul lay Ndiaye mu bëre yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom keneen koo xam ne nii moom bëre na fi bu yàggul ba daan mu di ab xale ka mu daan nag moom moo di xale ba nga xam ne nii moo nekk ca Bawol mbooloo di ki nga xam ne nii moo di ñagas caatuwaalo moo def loola caatuwaalo nag ba mu jógee ca loola moom que mu bëgg a laalantee daal wala que mu bëgg a jàpp ne bu ko jàppee defanteeg moom ba mu saf-saf mooy buur siin bu bawal yëglikaay ba xëy ñëw tey wax nu ko moom sunu làmb waaye leneen loo xam ne nii wala keneen koo xam ne nii dañuy dem ci beneen yëglikaay fekk ko fa muy bis mi ndooy yëglikaay bi di l'observateur xëy tey ñëw ci moom bis mi nag mu mel ni ki mbër moomu daal fi mu nekk nii loo ci mën a dégg moom ah ak dundam daal goo xam ne nii yëglikaay ba ñëw na ca moo xam ci làmb ji la ak leneen la nga xam ne da koy def maanaam bis day ñëw mu nekk ku mbër bëre waaye am na guddi yoo xam ne tamit daal day nekk ci wàllum sécurité maanaam daal di nekk ci wàllum li nga xam ne nii moo di videur waaye tamit leneen loo xam ne da koy def maanaam daal moo di li nga xam ne nii moo di rig bi yu mel ni ki noonu yëpp daal maanaam Bismi Ndoye da cay yëngutu l' observateur xëy tey ñëw toppal ñu ko nga xam ne nii moo nekkoon fa nga xam ne nii moo di ca écrit Ndakaaru bu nu continuer ñun dellu fa nga xam ne nii moo di fa nga xam ne moo di record record moom li am ba ñëw na tey ci Boy Niang Boy Niang nag wax na moom fi mu nekk nii daal ni muy dunde wàllum li nga xam ne nii mooy jamono ji nga xam ne moom lañ nekk moo xam confinement bala bokk wala couvre wasifa ba wala koor ga jàpp na ne daal moom li am ba des daal fi mu nekk nii day li am ba des daal moom daal nee weeru koor yi moom du ko foye nee na déeréet moom moom mën naa foye lépp wala di def ci ay foo ak yàq jàppal bàyyi ci lépp waaye nee weeru koor moom bokku ci suba waxi noppi nee tamit heurem yu ëpp yëpp ci këram la koy passé ak famille am di jullee ka ñaan ci kanamu li nga xam ne nii moo di njabootam bu dee guddi gi nag moom na la wàllum PlayStation ma lay joué ak jëm yi nga xam ne nii la passé woon mu di ko seetaan ak a seetaanal waaye wax na ca nee moom li am ba des daal du question de quantité lay lekk de waaye qualité maanaam lekk gu bëri ga moom nee na moom du ko def waanaam daal la muy lekk mu bari mu néew day jàpp ne boobu qualité lay doon su ko mënul mu bàyyi leneen loo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom mi nga xam ne nii moom moo di record record nag fan yi ñu génn dañ fa waxoon ne ordinateur huit drapeau la gañe waaye daa mel ni record weddi na ko la mu xam ne daal nee na moom Mamadou Faye moomu daal la mu gañe ci ay drapeau romb na huit maanaam daal balaa saison jeexe daal gañe la ci lu toll ci fukki drapo ak ñett maanaam treize drapeau yëglikaay baa xëy ñëw tey wax ñu lu mel ni kii noonu keneen koo xam ne nii moom ab manager am waxal na ko di ndooy mu di ka nga xam ne nii mooy tay Tyson 2 ndooy daal nee na li am ba daal jàppal ne na kii nga xam ne nii mu di rëg-rëg day bés bés leen joxee avance am dañ koy lekk ba mu set wecc loolu wala moog lekk ko ba mu neex loolu waxi ndóoy la ne na mi di tay seen di daal ne na man ndóoy man mi ko yor waxuma ay waxam ne mais samay wax laay wax ne na li am ba des man pare naa ngir rëg-rëg bés bu nu ko joxee dañ koy jël keneen koo xam ne nii moom wax na di ab xale ci làmb ji muy àggogoo nekk ca Parcelles Assainies moom daal ka mu gis ngir mu doon Alioune Sarr ne na père ba bu la gis lii la àggogoo wax yàgg maar ne na ba nañ ko jox CNG mu jiite ko ko mën a ko yaayey olof a ko wax ku raj jëmale sa kanam mu dël mbokk yi ñu siiw ci Leewtoo TV Babacar ngeen àndaloon ci revue de l'arène bi Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay biram di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk ah, di leen ziar di wax ne mën nañ leen ñu ngi leen di nuyu tey ci lundi bi ah di leen ñaanal jàmm baax a baax te di ko saaku si ñoom ñoom fu ñu mën a nekk rek si àddina bi. waa di wax ne corona oblige corona daal nañu bàyyi ak jàmm dana hmm, ci am solo tey Babacar ñu ñëw sunu làmb waxtaan ak ñun ci lu bëri ci xam ne moom mooy euh, euh, suñu papa ji nga xam ne mooy Mouhamed Ali ci feebar bi nga xam ne tëraloon na ko. waaw loolu dèjà yëglikaay bi ñëw na ci tey seex ak waxtaan bu yaatu yaatu mel ni kon feebar ba daal xawoon na métti waaye nag daa mel ni mu ngi xaw a kii génn ah mu mel ni kon ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla yëkkati ko gën ko wéral moo képp ki nga xam ne wéradi nga waaw yaa ngi dégg parce que àddina tëdd noonu nit da ngay feebar yaa ngi dégg dund moom fekk yaa ngi dund di tooy rek ah il faut feebar di am yaram di metti di di di di di wér noonu la di doomu aadama yi daal parce que loolu mbiru suñu borom bi la waaw yaakaar naa ne kon moom Mouhamed Al nekk koo xam ne nii vraiment gisoon nañ tamit ku mel ni manque de ànd ak anse gloire dem fekk ko fa mu nekk soutenir ko bu baax a baax a baax mu mel ni kon daal ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla gën ko wéral moo képp ki nga xam ne ni wéra di nga barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amina ci topp mu mel ni moom joxe na xalaatam ci ki nga xam ne moom moom la mu na fi ba tey moom daa gis ne bu doon moom nekk place tey du fi toog day dem yoonam waaw ñëw na tamit xam le na ni Alioune am na lu mu liggéey lu bare bari ci làmb waaw yooyu mu wax yëpp lu ci ne lu ci nekk rek euh, bu dee moom bu doon man la woon damay dem ah loolu gis-gisam la am na si droit nit ku ne fa ngay toll ngay waxee li ci des tamit côté liggéey bi tamit ci docteur Alioune Sarr ak CNC bi loolu moom defe naa loolu ama am la am na lu bari lu mu fi liggéey daa fekk ne nag liggéey moo mënta parfait waaye mooy gis-gisu Mouhamed Ali hmm. waaw ci docteur Alioune Sarr sax la ñëwaat ndax moom dafa mel ni yéeglekaay yu bëri dañuy ñëw ci moom muy turbine muy observateur muy sunu lam hmm, euh, doon loo xam ne dafa ne daal moom mission la yore te mission bi daal moom fas yéene na ko àggale waaw léegi daal li am solo mooy moom ñëw na tey wax na fu yaatoo yaatoo ya kan mission lañ ko jox mission bi mu yore fekk ni ko koy jox mu ngi ko parce que moom moo jox boppam waaye ci li ñu gis ko mooy que ni li nga xam ne ni mooy arrêté moo koy fal arrêté ministériel maanaam waa ministère de sport ci arrêté mi lañ koy fale mu jiite boobu ba loolu la loolu mu amee ah comme ñun ñoo ko ko jox nag ah moom li ma gis mooy fekk ñu ngi di ko jox moom mu ngi téye bis bu yàlla waxee day dem day dem waaye la am solo nag mooy xëy nit ñu bëree bëri tey Euh, bu ñuy wax day dem am na ci ñoo xam ne dañoo xëy ni ñi gis nañ dafay yàgg ñu gis de beneen sens bi am na ñoom tamit dañu jàpp ne yàgg na fi mais mu ngi liggéey mu mel ni kon xalaat yi ñoo nekkul benn rek mais àddina moom noonu la mës a tëddi ñi dañuy gis lii ñuy gis lee waaye li ci am solo mooy nañ ko bañ a def rek boo xam ne dañ koy personnaliser mais nañ ko def loo xam ne lu objectif lay doon waaw loo ne njariñu làmb ji kese kese moo tax yow miy wax na dem ngay wax ngir njariñu làmb yow miy wax na toog ngay wax ngir njariñu làmb moom miy toog itam muy toog ngir njariñu làmb buy dem itam mu dem ngir njariñu làmb waaw loolu rek moo ci demam googu sax la ñuy ñëwaat ci Keba la mu waxoon nee na mu bëgg na doon candidat waaye nag euh, tontu nañ ko tontu bu saf-sàpp de waaw Serif Atxaan Xaal moo ko tontu moom itam maa ngi koy nuyu di ko jaar di nuyu Keba ñoom ñëpp samay waay lañ xam naa leen bu baax a baax Serif nag daa ne jamono ji Keba Kante waxe ay waxu jël seen seeg jiiteeg yooyu nee na du jamono parce que nee na corona mënu fee nit ñuy faju di jóg ak a daanu nit ñi di tal pour corona jóge fi yow ngay tal ay banque yi jox nga koy toog nga cay toog mel ni kon daal àddinaa gi noonu rek li olof yi di wax daal xamal la ngay wax waaye bul xam lañ lay tontu rek waaye ñoom ñëpp ku ci ne muy sërif ak ki nga xam ne mooy keebaa yëpp ay jeunes lañ yoo xam ne nii ay jeunes lañ yoo xam ne ëllëg Sénégal yaakaar na ci ñoom lu bare bëri ki nga xam ne mooy keebaa itam la mu def amul ngaañaa parce que li mu bëgg la wax rek li mu bëgg la wax yaa ngi dégg waaye kay itam dafa jàpp ne du heure bi moom du heure la ko wax kon nag ñu bàyyi ak internet ñu ñoom mel ni daal <laughs> waxtu yi daal xaw naa doy waar fu wax ay problème wu changement diw ak diw waaye Ablaye Ndiaye toog na ñeenti at bëreewul deful benn action presse bés def benn activité ci làmb waaw gëj nañu koo gis de lit avec Farak moom defe naa bëgg gris de daanee ba tey la ci gëj te lit simple bi tamit donte daaw gisoon nañ ko mu jot a ñëw benn tournoi fa nga xam ne defe naa mooy ca dëkku Ambroise ba Mm, defe naa jotul sax a bëri ndax dafa tardé woon xaw ma à part ça gis nañ ko gis ay at a ngi nii man nag dem naa fi seetu ko fi benn moment Joal fekk ko fa mu amoon blessure boo xam ne nii moo ko xaw na téye mel ni kon moom itam nekk na mbër bi nga xam ne wala xale boo xam ne nii làmb am nañ ci moom yaakaar rawatina lit simple waaye rawatina lit avec frappe ndax bi mu ñëpp dañ ne ah doonay Yékini ñëw na. waaye nag loolu moo la yoon ne làmb demee noonu xëy na nag ñàkkul day defaru ngir bëggaat bu ñëwee gën a amaat taxawaay bu gën a wóor ma ciy profité du nuyu waa Joal yëpp. waaw di jaajëfal moom waa Joal yëpp waaye itam l'observateur dafa ñëw ñun ci bis mi waaw bis tey la ñëw ci dundam maanaam mbër mi nga xam ne nii dana bëree dana def wàllum sécurité yaa ngi dégg dana def tamit lu jëm ci wàllum rig bi yoo xam ne nii moom bis bi ndooy da ciy yëngatu mel ni kon moom daal euh, moom bëri na ay yëngatu yoo xam ne nii mu ngi koy taxawee moom bis mu nekk mbër yoo xam ne xamoon nañ ko ci ginnaaw yax jób yéeki nii yaa ngi dégg ñu daan ànd ànd bu rafet mu nekk nekk di Ndakaaru jóge fa dem sumbe jun par la tamit xaw nañ ko ko jege ci làmb ji mais nekk na mbër mi nga xam ne daal mbër mu am lu mu marqué la ci làmb daal moom bis ñu koy nuyu di ko ziar noonu la ñuy demee ci Boy Niang ci ki nga xam ne moom mooy record yëglekaay nu muy dundee li nga xam ne moom moo di confinement bi ak yooyu. moom daal jàpp na ne confinement ba ak koor gi fi mu nekk nii daal toog këram lay def la plupart am nga concentré wu ci. maanaam ay julleem ay ñaanam maag famille maag am mel ni kon actuellement defe naa loolu tamit actuellement ñëpp parce que ñu ëpp ci sénégalais noonu la ñuy dund fi mu nekk nii waa xam ne moom wàllum koor du ko sax caaxaane et puis tamit defe naa loolu mooy li war a am ndax weeru koor daan nekk weer woo xam ne comme li ñu wax dinañ weeru promotion la kon bu ñëwee ku ci ne rek boo amul gàllankoor dëgg dëgg dëgg war nga caa def la nga man ñaan ci yàlla njéggal ak yërmande parce que loolu lañ ci yaakaar yaa ngi dégg la ca des mooy comme que moom lekk bi tamit wax na ci xam naa dafa bëgg lekk waaw <laughs> <laughs> xam nga bëgg lekk su ma jumul est ce que santul ngoom sax booy ñàng <laughs> waaw da nga xamee yaa ma gën a xam dañoo bëgg lekk ndax mu nga naan moom lekkam du bëri mais maanaam lekk bu bëri bu am qualité bi moo ko gënal quantité bi maanaam waaw wax nga dëgg boo daful man mii sax kay qualité a gënal quantité booy ñàng waaw ñu koy ah, loo ci mënti dégg moom xam naa comme tudd na lekk bu bëri gi daal yaakaar naa ne soxla na ci bi <laughs> day lekk lekkat la sax booy ñam day lekk <laughs> ngom la sant defe naa ne muy nuyu ngomeen yëpp samay doom ni jaay lañu eh, ji fi ñuy mujjee mooy agogo agogo daal moom nee na moom bu sañoon daal ñu jël père ba daal def ko président CNG père ba waaw loolu la àggugoo wax de waaw maa ngi koy tooñ sax ne courage jëmale sa kanam mu dël waaye gis-gisam la wax tamit te am na si droit nit ku ne am nga droit ni lii mooy sama gis parce que sénégalais la mbër te ci lambe ji la bokk xëy na am na yaakaar wala mu gis ay qualité yu mu gis ci père ba yu jàpp ne war na mën a jiite lamb wala CNC waaw père ba it ñu koy nuyu di ko ziar suñu kilifa vraiment nekk euh, kilifa yoo xam ne kilifa bu baax a baax la mais àggugoo daal wax na xalaatam léegi nag à vous le sujet du lañ koy waxee mm. waaw waaw xalaatam la wax moom àggugoo dañ nga koy nangul noonu la ñuy euh, tàggoo mbokk yi rek euh, leen ñaanal jàmm di ko sàkk ci ñoom waaye tam di nuyu mboolem ñuy suivre ci Leewtoo TV mbokk yépp nag ñu fen ci diaspora bi ci biir Sénégal euh, lag yàlla pangol Ibra Sarr ñu ngi koy nii bu baax du du mën a ñàkk parce que doom pat ci bokk sot la bokk Babacar ah di nuyu yàgg maar nag vraiment di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp ndey Kumba Fall ñu koy ñaanal wér gu yaram bu sax dakk ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñu tawat ci Sénégal daal yàlla nañu wér amin yàlla na yàlla nangu ñaan yi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, yàlla na ñaan yi waaye ñun tey dañuy gën a damay gën a wax rek ci coronavirus bi ak ni muy doxee parce que ñun ñu fi nekk tey di ay ay sénégalais lañu yaa ngi dégg bi ñu nekk ay sénégalais ñoo bokk réew defe naa état bi nga xam ne ni moom moo décrété ko couvre-feu li ko waral mooy suñu santé suñu wér-gu-yaram ngir ñu mën a moytu kon defe naa li ñu digal nañ koy def li ñu waa santé digal di takk masque yi respecté distance yi xam nga wàññi joxante loxo bi yooyu yëpp defe naa lu ñuy aar la yaa ngi dégg mais ñi nga xam ne dañuy xëtt ay frontière jële Jakarta fa nga xam ne nii moo de ndàngal ma jëm si Thiès wala nga jëlee ko Ngoundiane jëm si xombal loolu defe naa war na mën a ñàkk teñ na ku ne na nga toog fa nga ne loolu est ce que yëfu citoyen la yaakaaru ma ne un bon citoyen noonu la war a doxalee yaa ngi dégg nañu respecté li nga xam ne mooy norme yi parce que à chaque moment bu ñu xëyee cas communautaire yi di gën a yokk te loolu su ma juumulee ñun ci sama gis-gis mooy suñu doxalin moo ko moo koy def kon nañu xoolaat suñu bopp baax xool suñu taxawaay état bi tamit ñu leen wax ne que li nga xam ne nii moom la jox nit ñi ci dund am na solo waaye defe naa ñu gën a concentré wu tamit ci li xam ne nii mooy wàllum santé beeg li ñuy aar est-ce que du ëpp solo parce que nag wér-gi-yaram mooy lépp ngi dégg di wax ne que daal ñoo bokk réew mi affaire bii nañ ko xeex xam ne ñun ñëpp ñu doon mais ñu bañ koo xeexee boo xam ne affaire appartenance la wala affaire farfarloo wala affaire kii fee la bokk kii noonu loolu am feebar la bu dugg ci réew mi ñépp la laal yaa ngi dégg kon nañu bàyyi xel bu baax a baax ci loolu euh, di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu tamit muudu muudu ñoo xam mention spéciale ci taxawaay bi rafet na jël ñaanal yàlla mu cël leen parce que fa ñu ne sori nañu tey newuñu seen biir réew te ñu ngi leen confiné ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di ci beral nuyu nag commune ni Omzo bu Garga maa ngi koy nuyu ak ki nga xam ne nii moom mooy Ngañ Sow taalibe Cheikh Béthio Thioune Serigne Saliou ca Kentucky États-Unis maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu képp ki nga xam ne ñu ngi siifar Amina Ñing ca Golf maa ngi koy bëggee di nuyu ki nga xam ne nii moom mooy tuuti yaay Sarr Khady Rose Ndiaye Asi Diagne sama naar bi di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu ñëpp waaye tamit di wax mention spéciale waa daayira Masalikul Jinaan ba nekk ca suñu commune benn dëkk bu ñuy wax Mbomboy parce que dañu génne 150 000 dem jox ko maire commune ba ngir lan ngir jàpp ci corona bi ngir defar masque yi ñuy defar pour jox ko nit ñi te defe naa na solo trop trop muy nuyu ña ko suñu papa Assane Kaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax ak ña mu seqal daayira ba yëpp di sama yaay Mbomboy la dëkk maa ngi ñaanal ñëpp jàmm di xam ne Sénégal yéen fi jàmm yàgg amin Babacar bu subaak jàmm incha allah.